avec beaucoup de sincérité. mais euh, na euh, xam nga ma as je crois. waaw loolu laa bëgg dama bëgg ñu waxtaan nga bañ a politique daal. nga ñu ñu wax affaire mais du ma waxantu. daal ah. loolu moom mënoo fi fexe mënoo tourner ba may waxantu. non pas nga comme je vous dis aujourd'hui si. mais mais mais mais mais nga am benn distance critique et puis nga analyser euh, les faits avec beaucoup de froideur. c'est ce que je suis de faire aujourd'hui di nga laaj un lambda mu ne la la jeunesse je c'est pas. la jeunesse. dissension yi ñu nemmeeku ci camp wu majorité bi ex majorité bi ban nan la ban impact la am euh, ci résultat final bi. non mais ça xam nga dugg peut-être dans le détail bi ma la naan bi njiitu réew mi naan ñu def leen li war d'abord euh, ànd ñu te nag mais mun ay jullit lañu ay xol bu ñu àndul yàlla du la jox. globalement nit ñi voilà desoon na end bi desoon na solidarité bi desoon na engagement bi desoon na mois j'ai entendu sur vos plateaux télé bu nit waxee ni moom deux jours la bat campagne ça veut dire kooku xamoon ne mënul gagner fi mu nekk on est d'accord sur ça donc euh, gis du dañ ko dund euh, voilà nos moyens de campagne quasiment c'est à quatre jours cinq jours bu la génn et cetera pour des gens qui qui voilà pour un régime euh, tout ça moo tax ma ne un ensemble de choses lu ko waral que la base. les moyens de campagne à à quatre jours avant l'élection ngeen ngeen ko jot. xamatuma ñaata la mais quasiment la fin loolu loolu xam nga problème la lu ko waral nag y a forcément des raisons ci kan la ne woon lu ko lan je ne sais pas encore moo tax bëgguma aussi wax di peut-être di di wax loo xam dañ koy tegg ëllëg je ne veux pas être léger mais je dis euh, li ñu waroon def defuñu ko yàgg nañ toog ci réunion ñu wax ñu ko. ñu koy waxtaane suñu biir euh, malheureusement defuñu ko Sénégal bi 46 département la boo xam booy toogee à un moment donné war nga xam fu ne foo toll loolu c'est important bëggoon naa tey pas li ñu publier dans les réseau am comme avant on pouvait l'avoir les vrais résultats de ces élections département par département et cetera ñu jàngat ko euh, noonu lay fonctionner ci politique euh, loolu na xëy na à moment donné est-ce qu'on vous a posé Euh, la question d'un d'un changement du candidat personnellement à qu'un moment pour être franc xëy na pas dans ces secrets-là mais j'ai eu dire que Aminata Mbengue on lui a posé euh, cette problématique-là et quel que soit ce qui va arriver moom elle est avec Amadou Ba là c'est elle mais je dis la réponse que je donne c'est que personnellement moi on m'a pas posé cette euh, problématique pour être honnête kenn waxuma. mais est-ce que yëgoon nga da nga daan dégg est-ce que yëgoon nga. Hmm. Euh, dissension wala benn froideur bu installé wu entre le président Macky Sall et son candidat dund nga ko. non vraiment may mën a pour être honnête non parce que ñaar ñooñu fan laa doon dajeek ñoom généralement bul fàtte ne bokkuñu parti mu daan dajeek ñoom généralement ay conseil du ministre machin c'est c'est réglé quoi c'est c'est pas là où vous allez <laughs> sentir des éléments politiques on vient. Euh, le conseil se déroule après voilà et c'est c'est c'est c'est très réglé bokkuñu parti Euh, voilà dajewuma leen ñoom par président toog amul toog ñu wax politique voilà daje naa ku nekk et cetera donc man loolu posé wuñ ma ko à aucun moment de changement de candidat pour être honnête euh, ñun euh, on a on nous dañu amoon démarche boo xam ne dem nañ ba suñu njiit ne président proposé ñu candidat mu def processus am jën mu jëm ci impliqué ñoom Moustapha Niass ñoom Aminta et cetera ba proposé ñu candidat sur le candidat Amadou Ba une fois mu investir ci loolu lañ nekkoon ba ni ñu demee ba le jour du vote amul leneen maintenant euh, lan moo newoon ci suuf euh, et cetera maa ngi dégg en tout cas ay voilà beaucoup de théories beaucoup de de de choses yu nit ñi di wax euh, honnêtement man comme je dis du ma nettali gént jàmbur li ma fekkee mën naa ko wax lu ñu ma wax mën naa cee wax bu dee c'est pas confidentiel mënuma tey sama analyse rek naan lii ko waral lii et cetera man dañu génn élection le candidat Amadou Ba dama ko dégg mu sant gërëm Macky Sall jàppale bi mu ko jàppale foog naa ni loolu mag yow témoin lañ ci dégg gu wax leneen kon man du ma jiitu euh, li mu dund moo ko xam plus man man dégg gu ma Amadou Ba. mais yow jàpp nga ne yow ni nga war ni nga waroon na comporté woo ci élection comporté wu nga noonu. man doy par exemple liggéey bi nga def deux mille dix est-ce que def nga liggéey bu ni mel. 2024 laajal man ñi ma àndal ci biir plateau. Hmm. waaw man de battre naa campagne moom. ñaata jour ah man campagne bépp battre naa ko man tàmbalewoon naa sax avant ñuy lancer officiellement campagne parce que xamoon naa ne maa ngi doon déglu et j'ai des éléments aussi j'analyse je savais que bon il faut pas dormir sur ses lauriers parce que euh, sénégalais yi sénégalais yi actuellement ñoom folli la ñu gën a voilà 12 ans peut-être que les gens ils se disent waaye c'est autre chose euh, voilà et ils avaient envie peut-être aussi de de de bétonner ci suñu constitution yenn yi maanaam mandaay ñu limité et cetera donc y avait y avait booy fàttaliku ma daal di à un moment donné ma xoolee xool sama réew xool les intérêts les les les en tout cas li koy menacer les challenges qu'il y a ma jàpp ni euh, période bi passage bu délicat la man je me suis permis de dire que Macky Sénégal moo nekk ci kawam waroon na nekkaat candidat je me suis autorisé ça et je l'ai défendu avec mes arguments donc c'est dire que euh, Sénégalais yi ñoom dans leur écrasante majorité euh, en tout cas ils l'ont prouvé ñoom ils voulaient autre chose. alors dafa am euh, ku ku ku ne euh, Macky Sall ñaari mbir moo tax ñu rejeter le système Benno Bokk Yaakaar hmm. mooy la question de l'état de droit bu ñu ne état de droit dañ ciy boole la situation générale du pays. la situation de la de la justice euh, les promesses et les engagements euh, non tenus les reniements euh, les incarcérations euh, le, le traitement euh, accordé à l'opposition aux activistes à tous ces toutes ces voix qui se levaient pour dire non au pouvoir beneen mbir bi mooy la question de de de, de la gouvernance mu ne ñaari mbir yi moo tax euh, quel que soit Euh, promesse yi Amadou Ba doon def sénégalais yi mënuñ tuñu woon nangu ànd ak lu sab sab tabb lu jege euh, nguuru Macky Sall. xam nga loolu analyse lan ngay tontu ci dama ne xam nga analyse la man forcément lu ci ëpp li nga wax nga ànduma ci. àndoo ci ndax lan parce que man jàpp moo ni on avait une mauvaise gouvernance te yaa ngi koy dund. jàppoon naa ne ñu ngi doon tabax d'une façon extraordinaire ce pays et on le parce que nag euh, le temps et le meilleur des juges danañ ko gis. Euh, parce que ci liggéey lañ nekkoon ñun contrairement ak caricature yi ñu doon tegal ñun nekkuñu yoon ci loolu euh, jàpp naa ni aussi Sénégal on a eu boo xam ne ah, Sénégal gaw ma ni am na ko fi euh, ce qu'on s'est autorisé à faire au Sénégal liñ fi def foog naa ni loolu du loolu mooy dëgëral en tout cas dëkkinu Sénégalais yi en terme en tant que peuple bu uni donc yooyu yëpp tey je dis nañu xool comment les choses vont se passer mais sénégalais yi comme ni nga ko waxee bu dee majoritairement loolu lañ jàpp moo tax ñu le sens de leur vote ils l'ont montré euh, man nag euh, pour moi le peuple a toujours raison voilà man damay am sama analyse mais bu doxalee damay jàpp ni peuple bi bu am raison donc kay xëy na man ci samay option maa ju maa juumoon bi ma naan bi may def yenn option yi en termes de personnes euh, les résultats ont montré que c'était pas l'option majoritaire jàllu fi man foofu laa ko teg maintenant boo bëggee forcément teg derrière le vote de chaque Sénégalais une raison Euh, matériel boo xam ne si voilà si acté dana jafe dana jafe mais fii Sénégal on a toujours été un état de droit on n'a jamais été on a toujours été démocratique et d'ailleurs on a toujours eu des am ay institutions yu taxaw yu liggéey wane na ko Sénégal bi mënoon na jaxasoo am ay mën nous avons frôlé le pire à n fois dans ce pays la et ça ñi doon jàpp ni euh, xëy na noonu la ñu war a doxalee tey yàlla nattu na leen ñoo yor nguur gi ñii jàpp naa du ñu nangu le dixième bi ñu doon nangu mais dara parce que c'est le Sénégal qui est comme ça et danañ gis ni amaana ñu bëri ñuñ doon xarab démb ñooñu macha allah def nañ seen liggéey ci réew mi doon un pays uni un pays démocratique un pays de liberté loolu moo fi am maintenant nag euh, soxna si man bu ma ñëwee taal sa kër ba pare buñ ma téye ma ne non politique la gaw ma ni kooku sénégalais nangu nañ ko dund nañ ko gaa àndam nañ ci am na li mu joxe mais on verra que Sénégal yi gëw ma ni loolu valide nañ génn nañ élection yi euh, dafa leen bilan euh, Benno Bokk Yaakaar ne ah, loolu moom c'est une exigence euh, boo xam ne le président avait en tout cas am na ñu mu waxoon ñu coordonné ko et à la coli loolu il faut mu génn rapidement un livre bilan ou un livre parce que c'est important parce que la preuve tey lu ñu fi laal loxo rek mooy un peu ça des éléments de ce bilan. Euh, en man bilan politique laa wax waxuma bilan économique. lan ngay wax bilan, bilan politique. politique c'est-à-dire Benno Bokk Yaakaar génn nañ élection bi. Mm-hmm. que devient Benno. ah est-ce que Benno Bokk Yaakaar continue à exister. ah d'accord wala est-ce que ku nekk da ngay jël sa liberté. ah mais loolu il faut ñu waxtaane ko parce que Benno encore une fois coalition la. c'est pas une instance euh, coalition la boo xam ne amoon coalition politique la woon mu dem ba nekk une coalition de gouvernement yàlla def loolu donc ba mu commencé am une structuration de Benno commencé woon na moo tax nga am un CEP et cetera euh, aujourd'hui histoire bi dab nañu il faut que de façon mature ñu xool lan mooy njëriñu en tout cas suñu taxawaay par rapport ak li ñu bëggal sénégalais pas par rapport ni ma koy déggee souvent euh, xam nga may mun avant man bi ma duggee parti socialiste nit ñi dañu doon wax ni way seen 40 ans yi bu loolu ñun dañ ko gàddu ah da nga ne 2004 laay mais 40 ans yi dañ ko gàddu euh, ñu dem di liggéey di liggéey ba commencé dégg bu ñu nee parti socialiste bokkul ma dégg ñi ko doon wax naan non parti socialiste c'est un parti historique c'est le premier parti dafa war a bokk. tey par exemple loolu nga tàmbalee dañoo war a am suñu voilà suñu drapeau euh, ma ne donc liggéey am na liggéey bu am solo am na euh, par rapport ak loolu bennoo. euh, nous sortons d'élection c'est-à-dire que ñun aujourd'hui nous avions effectivement wax nga ko sa introduction dañu jàppoon ni ce même pas élégant ay nit ñuy toog nga naan da ngay dal seen kaw amul sens nous avons dit cent jours yi au moins dañu bàyyi nit ñi dërul après ñu xool moo tax xëy na nga ne gars dañu teg tekkaar wala dañu kenn rasewul mur fii ñun on s'assume pleinement euh, waaye nag bu dee euh, gouvernance bi du ñëw tout de suite jublu ci promesse yi engagement yi nga réglé ko mais ci leneen ngay jublu boobaa nag di nga xam ne ah ñi fi nekk aussi ay politique lañu.